assalamu beaucoup Sénégal assalamu alaikum bi Nous sommes ngi nuyu pour euh, vraiment euh, attirer attention euh, par rapport à l'événement que nga avons ne dans le koy Pour expliquer aussi que ni immigration de servir pour nous am ouverture d'esprit c'est-à-dire que xam avons tout euh, àdduna euh, nu nous nous muy doxee par rapport à sa dëkk on a constaté que en ce moment il euh, y a l'événement de Bercy bi nga xamante ni Youssou Ndour ko daan def muy réussir ci contexte passé nga nous ne mënoon le permettre mu def ko ci contexte nous ñu ko doon saluer parce que événement la woon voilà c'était pas mal mais euh, cette fois-ci, quand même, euh, on attire l'attention des Sénégalais. Nous avons le contexte actuel au Sénégal, politiquement parlant. Euh, nous permettre nous def événement bu déjà euh, mais aussi situation actuelle euh, économie aduna bi monde bi ak diaspora nous sommes actuellement avec li euh, actuellement qui difficulté immigrés sénégalais je pense qu'actuellement... ce c'est pas le le le moment opportun pour vraiment di def ay organiser Bercy et que voilà c'est pas responsable c'est pas raisonnable de la part de monsieur Youssou qui a été déjà un ministre sénégalais hein qui a depuis longtemps euh, était vraiment euh, dans le monde du sobiz Ham, li fa mon de euh, donc euh, on on pense que ni vraiment je à sa place Youssou vraiment je ne le fais pas c'était pas le moment hein, ni sur le point de vue économique ni sur le point de vue politique parce que euh, je crois que ku meuna a dajale ay nit ah, pour def événement bu melni ni Bercy war nga am benen xalaat pour dajale l'en, def médiation parce que tension sociale baa ngi fii Sénégal mu ngi Il y a des élections kep ku am lecture xam nga ne fiñu jëm ni ak rassemblement yi am ni du moment wu di fo wala di caaxaan té au bout d'un moment nit ki da ngay nek responsable je suis très désolé euh, je suis pas en train de lui faire la morale, mais je pense que M. Youssou euh, un homme respectueux comme toi, ni la à travers le monde euh, n'était c'était pas le moment nga Bercy c'était pas le moment de Bercy mais de l'autre côté j'appelle pas ni ñi ñu Bercy mais j'appelle euh, tout simplement euh, les immigrés sénégalais sont raisonnables parce que amul ben modu modu buy wax instant yi ne jamono yi ñu ni ne tu peux te permettre hein de dem yak khalis bo xamné en plus on nous dit maintenant des billets à 200, 300 euros entre Bercy Vous faites contenir da ngeen di dem pour foo féexal sen xol ci moment bo xamné du contexte actuel bi sax waru ko jar parce que yéen fille.

Nous dul ñuy gis des irresponsables au Sénégal union nan naan dem concert ngén di fay xaalis bu bari di préparer di investir ci ay yéré ci ay noonu té yéen ñi koy def je peux dire que les 80% vingts ñi def lolu bëgg dem woné wu télé Sénégal wala wu ne dem na Bercy da ngén di dajalé da ngén di kolo kolo pour def ko parce que situation actuelle monde bi ñëpp xam nañ ko tout le monde a pris un coup même même même même les gouvernements européens ils ont pris un coup donc qu'est-ce qui explique le fait que Yen gagne Bersibi, déjà déjà déjà pour man pour man vraiment Yusundur, euh, si on peut lui passer le message et je pense que Dino ko dégg Youssou on sait que Nak, bon a soutenir Macky Sall a soutenir mais yo, da nga a sénégalais yi la d'abord avant politique avant le dañ la bëgg Youssou Ndour te da preuve mais yaa ngi koy yàq mais cette fois si soo def épi ay caaxaan la nañ waxante dëgg bersi ay caaxaan la ay foo kenn du fa am yàlla kenn du fa am yonent bi Sénégal a ngi waaj a tas problème yaa ngi am jafe-jafe yaa ngi am yéen amuleen lenn loo leen di mobiliser nit ñi lu dul ñëw di foo ci biir dëkk tubaab bi bu subaa ngeen xëy di xoolante ci bët ñi wër di lebi bor ñi wër di nangam ñi wër di nangam il faut qu'au bout d'un moment ñun sénégalais ñu raisonnable il faut que ñu raisonnable képp ku nekk immigré nga nekk France nga nekk euh, partout en France xam nga li fi xew sénégalais yi dañu sonn liggéey amatul gars yi ñu ngi ñu ngi vraiment ñu ngi sonn ah boy yi tout ça Sénégal vraiment digne d'être un sénégalais am nga appelé ce côté 10 euros 100 euros 20 euros mais ngay dam diko sanni ci bus 200 euros 300 euros di alors que nit ñi talatuñu lool, même yi surtout contexte actuel bi Hein? nañu nañu nañu nek tout responsable soyons plus responsable hein ah? et puis ce qui est un petit peu devoir, moi, momaï moment et moment euh, monsieur du Ndour di def Bercy moment moi je pensais que quelqu'un qui a été ministre de la République quelqu'un koo xamante ne dafa ne bëgg na dëkkam moment yi vraiment waroon na xalaat pour repousser date bi mais waru woon xalaat rek dem jël xaalis yéen moodu moodu yi nga xamante ni yéen a ngi daan seen doole am na ñu am problème ngeen war a xalaat dem jàppale Sénégal dem jël seen xaalis def ko ci loo xamante ni yàlla loolu la santaane yonent bi loolu la santaane ngeen nar a dem uyu ji loolu mois je n'appelle pas kenn mu boycotté ku nekk yaa libre pour def li ngay def ku nekk chacun est responsable bëgg juste nit ñi ñu raisonnable nañu raisonnable gars yi ñu bàyyi caaxaan yi parce que li ay foo la ay tiaxan la bersi mënon na nek benen moment budul moment bi te même su nekké waron nañu baña a abusé wu ci ci prix ko laaj ci euh, ay sénégalais yo xamné ne ils te demandent même les gens ne réfléchissent pas comment peut-on demander de l'argent pour acheter des billets pour aller s'amuser alors que le pays est presque en feu et en flamme hein? vous ici déjà vous n'avez pas amuloo xaalis bo xamantene meun nga ci euh, defal sa bop, nga naan da ngay ñaan pour dem fooy vous savez combien Bercy va générer en économie loolu xejul won ci ci ci ci ci Sénégal xejul won ci problème yi tiep bi diwlin bi essence bi lepp di yokk Sénégal je pense que modu modu yi dañu waron melni ni modu yi fi wessu. Ñing fi fekk ñu amone ay jom amone foule di contribuer won ci économie Sénégal di renforcé. renforcer mais Modou Modou fo tiaxan motax eric Zemmour ak ñu melni Nous di sénégalais ñu pourtant sénégalais bu bopam kenn du ko sama gaay yousou Ndour mu jot message Bercy je sais pas mais t'as tout faux ngeen baal ma ak maa ngi jégalu bu baax wasalaam